Euh, défendant naa je yi moo gérer vraiment je le gérer parce que la direction des bourses direction rattachée la donc je koy gérer L'université université gérer wuñ ko mais il y a des nga qui ne université yi gérer ak centre des œuvres centre régionaux des œuvres universitaires yi nga ne social ils ont ñoo koy gérer autonomie donc il y a des xam ne ministre les bien que le ministère soit pas départ mais il y a des nga qui ne ci man boursier. Euh, di bon bourse yi bëri wax bëri na coow mais li ma bëgg a wax mooy mënul làq effort yi Sénégal gouvernement du Sénégal def ci président Macky mënuñu ko làq wax nga ko léegi 70 milliards du mooy budget du budget direction des bourses mooy budget des bourses yi ñuy jox étudiants yi par an 70 milliards La Côte d'Ivoire en donne 16 milliards. Deux fois et demi plus d'étudiants, 16 milliards. Le Burkina Faso, 8 milliards. On ne donne plus de bourses au Cameroun, on ne donne plus de bourses au Togo. Il y en a plus, le système est inexistant. Sénégal, moitié Dess Président Macky, 24 milliards, 70 milliards. 24 milliards 2012, 70 milliards. Effort, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y kuy defal loolu étudiants yi vraiment defe naa am na leneen lu ko étudiants yi war a taxawal que kii dafay saboter no mbaa kii deful effort non def nañu effort yi important ci bourse yi étudiant maa ngi koy wax Sénégal yëpp di ma déglu étudiant bu amul bourse am nga aide sociale aide sociale bi cent mille francs la par mois ñu ngi ko calculer ci nan Moi, 100 000 francs étudiant boutique 100 000 francs ci at par 100 000 francs la at 100 000 francs il mën nga ci repas parce que étudiant 250 francs lay dépenser par jour pour ndeki ak 250 francs boko a ci 30 jours mois bi 7500 francs on fait sur les 9 mois on a 70 000. chambre étudiant 3 000 000. sur les 9 mois on a 30 cela veut dire que pour être aide sociale gouvernement a jox la chambre que Nous avons une bourse bourse bi les bourses 20 francs par mois nous ñi am 30 000 Nous ñi am 40 000 pour ñuy def licence puis def master à foo 65 000 francs lañ lay par mois te ñoom 12 mois lañ leen di 12 mois lañ di fay. gouvernement du Sénégal étudiant bu nekk Sénégal 2 millions lay gouvernement du Sénégal di dépenser ci par at. 2 millions. à top. Ce gang et lek. Si on divise par 10, c'est 200 000 francs par mois. Cela veut dire que le gouvernement du Sénégal qui dépense des étudiants, c'est ce dépense écoles l'école euh, hiérarchie A par mois. quest Vraiment, on ne va pas jàppaloo tànk étudiants yi ci bourse 70 milliards dañuy par an sur bourse waxaguma li 90 milliards directement université yi non ko ko def vraiment am nga effort yooyu def ci Sénégal maintenant depuis événement bi am ndar président de la République dafa jox instruction ministère des finances ak ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation que nous inscrire nous que nous inscrire paiement des bourses des étudiants sur les dépenses prioritaires de l'État du Sénégal cela veut dire que tay dépenses prioritaires mo am Ben salaire fonctionnaire agent de l'État yi deux le service de la dette sérieux parce que loolu bu ñu ko fayul mooy réew mi nekkatul réew trois muy bourse étudiants yi si effort politique amee am na jeex na ren problème bi am c'est que chaque année en début d'année ko kuy étudiant xam nga ko que ni yi doon ñu ko fay lu dul décembre mooy li ñuy wax gros lot nga xam ne étudiants yi sax dañ koy parce que étudiants yu bari décembre fin novembre nous avons door ñëw inscrit door di examen, examen mënuñu mënuñu fay avant avant novembre mënuñu même décembre day fekk mënuñu fay parce que l'Université Saint-Louis ba tey amuñu résultat l'année dernière donc ay projection ay ex projection lañuy def né étudiant bu nga xamné vraiment yow mëno perdre sa bourse parce que redoubler go ñu fay la sa bourse ku mun ku redoubler gul ñu fay la sa bourse parce que xam nañ ne boo redoubler tamit da ngay am bourse parce que am nga droit redoubler benn yoon ñu fay la sa bourse ba mu des ñi nga xam ne dañoo war a jeex parce que ku nga xam ne bu jeexale même bu redoubler bu ak mais day génn ñooñu ñu ne dañuy xool dañuy def attention rey ren fay nañu 12 décembre daaw rek 2018 rek la fay avant

ñooñu kon bu ñuy def projection ñi ñu war a fay waruñu dugal année boobu ci projection yi parce que ñooñu ñu fa nekkoon waruñu leen jàpp ne dañuy redoubler gouvernement du Sénégal taxaw wax ak étudiants yi ne leen dinaa leen fay avant le 19 man maa wax ak étudiants yi ne dinaa leen fay avant le 19 décembre ñu jël toutes les mesures qu'il fallait demander à ce que la direction des bourses mu réduire la procédure procédure bi nga xam ne dañ ko doon def nga xam ne dañuy signer nous signer engagement décision ak tout ça nous réduire production yooyu ñu sommes le directeur des bourses ne déposer état yi rek directement ñu fay fekk étudiants yi njëkkoon nañu wax nañ leen fay avant Nous, nous ben arrêté nous dinañ leen avant Noël alors que nous avons nañ ne mënoon nañu fay avant le 18 Nous jël ay prérogatives nous avons ne dañuy avant Noël étudiants yi man leen no bu leen yëngatu dinañ leen fay avant le le 18 ñu fay le 12 ñun ñu fay le 12 gouvernement bi fay le 12 étudiants yi à Saint-Louis neñu ñom ont fayuñu leen à saint louis ñu étudiants wu Saint-Louis ñu fay ñun fait responsable ñew ci man man leen wax directeur des bourses. ñu ne ma non wax nañoo moom mais nee na ma ne ko directeur bouse lu tax fayee saint livre mu ne ma moom naa ko dama ko war a bindal arrêté comme quoi man moom na fay ñooñu ma ne ko arrêté bindoon nañ ko c' est la continuité de l' état il y a un arrêté bu ñu signé bu ñu bind ministre bi signé ko comme quoi année bi année bi invalide la léegi fay leen yi ñu on venait de découvrir le gouvernement du Sénégal venait de découvrir qu'il n'était pas dans les états on a demandé à ce qu'on rectifie il a rectifié ensuite il a démissionné en tout cas situation bu am direction de bout fa Il ko fek na fa 6 ans période bi man décision bu gouvernement dans la mise en œuvre le gouvernement découvre comme tout le monde que nous respecté l'engagement engagement état maintenant tout est rentré dans l'ordre hein, parce que nous pouvons pas nommer. Le président rek mooy nommé ministre le directeur le président nommé quelqu'un d'autre bu nga xam profil bon le Sénégal continue man gouvernement man ministre bi du wax Sénégal président nommé quelqu'un d'autre mais man président pour moi nommé pour démissionné damay dem demander ñu déchargement président du ko par la presse ministre bi du ko par la presse damay ñëw toog ak mom wax mu jëm ma convaincre mbaa ma ne ko non tuma parce que démissionner ci fonction bu le président jox nga xamné sénégalais yépp bëgg nañ ko du lu ñuy japp du lu nga xamné dañ ci bàkku bo bëggul nawewuñ kenn té consulté wuñu la bo bëggul da ngay né bëgguma en tout cas bon suñu ministère dina continuer ku ci nekk ak ni nga ko mënee dina am ñu démissionné ñu bëri mën na am parce que cap bi ñu jàll mooy cap bu nga xam ne bëgg a bokk ñun suñu équipe bi nga liggéey mais du ñu jëlee foofu kenn parce que bokk ak ñun nekku ñun ñomewuñ la woon mais on garde le cap jox nañ leen seen budget te yokkaluñ leen benn étudiant est-ce que déggoon nga wax ni réuni 450 lañ leen jox non affaire da pour am conditions mais Sénégal c'est légitime vraiment c'est légitime mais il faut nous, équilibrer. Le équilibre budget ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation cette année c'est 215 milliards Beaucoup ay investissement yi nga xamné président de la république daf ko ba ministère de l'Enseignement supérieur ministère de l'économie, ministère des finances et des budgets chaque année day fay engagement yooyu mooy ci infrastructure infrastructures ñu tabax en cours de la dette bi gouvernement du Sénégal di fay amna ci yu nga xamné ci université yi ko Il té amna investissement yu nga xamné dañ koy def budget de l'État du Sénégal et pour ci budget en ministère de l'Enseignement supérieur 215 milliards nous pour le budget ministère des forces armées le quatrième budget de l'état du Sénégal quatrième budget de l'état du Sénégal non on est doyul normal parce que nous sommes un pays en voie de développement mais bu fekkee ñun ñu ngi jooy yeneen ministères yi gisuma leen gisuma sommes ba mbaaw vraiment wax gouvernement du Sénégal le président Gatégala, l'arbitrage arbitrage yi ministère de l'enseignement supérieur maintenant nous pays en développement la ñu wax ah yëpp mënuñu ko régler mais li ñuy dal li ñuy am am na ñu nga xam ne mënoon buggoon nañ ko am ay option la yu ñu jël ci bourse yi soixante-dix milliards ci yeneen ak yeneen investissement wax naa fi cinq cinq cent milliards d'investissement de sur sur sur cinq ans maintenant boo jëlee université yi am na université yu yemuñu parce que bokkuñu bi ñuy préparé am na méthode de mesure yu nga xam ne c'est pas duñ ko mën teg fii parce que li ñuy wax mooy ñaata la ñuy dépenser par étudiant ci université yi étudiant étudiant université bu nekk da nga am nombre d'étudiants mën nañu xool ñaata ngay dépenser par étudiant englobé na lépp mun nañ dugg dans les détails ne ñaata enseignants ñoo fa nekk loolu yëpp englobé mais sur les questions budgétaires mooy ñaata la ñuy joxe par étudiant ci budget yi du ñu xool li muy def mais moo ci gën a tuuti le budget université Saint-Louis moo ci ëpp budget donc bu doyul dafa doyagul ba léegi Sénégal moo amagul lu doy. jël rek orienté fa te kenn doonu fa woon orienté dara ñaata étudiants lañ doon orienté Saint-Louis avant ñuy indi 3100 yi donc gap bi li yokk non <laughs> du 3100 yi. est-ce que l'université Saint-Louis a une capacité de recevoir 3000 étudiants par an largement Vous affaire affaire wu xam-xam la enseignants yi xam orienté mën nañu laaj gouvernement nous ni bëgg nañu bëgg nañu université Ziguinchor nous avons orienté nañu 3400 étudiants lañu fa orienté dégguma ci problème yu bari nous avons des ñoom xool nañu yenn mesure d'accompagnement université Gaston Berger daaw de recevoir ay étudiants Rennes mu recevoir ay étudiants université bu Ziguinchor daaw de recevoir ay étudiants Rennes mu recevoir ay étudiants université Ziguinchor daaw euh, di bu Saint-Louis daaw 450 le recevoir Rennes mu door recevoir 3100 moins que li recevoir te Ziguinchor jàpp nañu ñoom nangu nañu recevoir mën nañu recevoir 3000 ay dysfonctionnement dem ba ñu dem 3400 mais tay am nañuy mesure d'accompagnement def est ce que mën nga taxaw yow ne Ziguinchor mo mo ëpp capacité 5000 problème orientation du euh, ci nombre étude boo ci nombre d'enseignants, yi li ci l'emploi importance du temps enseignant les emplois de temps des enseignants vais vous wax nombre d'étudiants est-ce que les enseignants au Saint-Louis yëpp am nañ volume horaire est-ce que le volume horaire est réparti du lundi au samedi est-ce que répartir nañ ko ci licence yi mbaa ci master yi nan lañ ko ci répartir réparti c'est les emplois de temps et qui ñi nga tasanteel ñu wax la génnee gu emploi du temps ne la emploi temps yi permettre ñu recevoir les étudiants Si gu leen bu ñu ko génne ba mesures d'accompagnement. cela veut dire que sur le nombre d'enseignants, il y nañ des efforts effort yu def le gouvernement du Sénégal wara a def te ñu ngi koy def président créé na 200. man président jox nañu 200. Nous ñu ngi koy pour ñu defaat leneen ay arbitrage budgétaire ñoo koy def mais en même temps que ça aussi l'impact impact bi il faut que nous nous ñun nous ñu mesurer ko impact bi c'est lan nous ñu les emplois du temps dans les universités pour ñuy la requête cela veut dire tel enseignant am nay cours cours il le fait du lundi au samedi mais bien université boo ramener du lundi au mercredi ou du mardi au mercredi enseignant yëpp ci ñu regroupé ces cours après amul cours salle yaa ngi foofu des ñu né amul ay problème de salle il faut ñu xool amna ci université yu bari voilà les questions fondamentales sur lesquelles yu nga xamné yoyu c'est à l'interne lañ koy réfléchir ñun ak yi te loolu enseignants yi bàyyi nañ ci xel enseignants au Sénégal yépp bàyyi nañ ci xel bañu ñu même syndicat yi bañu ñu tok réfléchir sur loolu globalement ñu xol ñu évaluer le nombre d'enseignants bi dess ci université yi nga xamné war nañ ko fa def dinañ ko mesurer et que man tey man sama ministère sama li ma fi nekk xawma kan la def nañ ma mais boo fi nekkee ci ñaari domaine laay liggéey c'est sur les emplois de temps des enseignants et sur l'équipement scientifique des universités équipement didactique bi damay liggéey pour que ñu jël 50 milliards yu nga xam ne dañ koy jël jox ko les laboratoires ak les